أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنسى بك وزيتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضر الحمد لله وصلى الله أبدا على الذي به لنا هدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين والي الوالي كنا sant yàlla jiw si yonent bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jiite suñu yóbbee ziar bi sëriñ mu taxal ba lépp lu mu naan mu yeggale ko ànd ko ñun taalibe yëpp noonu koy ñaanale si ñam di Modou Mbène Fall yal na saa borom bi defanam ba lépp lu mu naan mu yeggale ko ànd ko ñun taalibe yëpp noonu dañuy nuyoo di ñi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi topp seen émission bi di yóbbalu koor di ko ànd ak seen mbokk Soxna Adama Diop ñu koy ànd yéen saa su nekk ci koor gi ndax ku ne xam na ni koor gi moom waaye ñu ngi ci fan yu mujj yi nag euh, tey ji ñu bëgg a ñëw rek ci laylatu xadar bi nga xamante ne suñu borom ci la wàcce woon alxuraan waaye nag mu nekk ci biir weeru koor ndax dañuy wax ni weeru koor moom mooy anniversaire u téere bi nga xamante ne moo tàqale dëgg ak neen ci nit ñi waaye tam moo nekk téere bi nga xamante ne moo ñuy digtal ak ragal yàlla waaye moo ñuy jottali waxi suñu borom ndax waxi suñu borom la moom moo ñuy jottali li nga xamante ne noonu lañu war a comporté ñun jullit ñi wax ni ina anzalnaahu fii laylatu xadri wa ma adraka ma laylatu xadri ليلة الخدر خير من ألف سحر تنزل ملائكة روح فيها بإذن ربه من كل أمر السلام وخير خطا من لحن فجر وحن يجعل نواتي القرآن تي فجر ليلة الخدر وينك من كتير بيغا خمانتني مو تاقلي دق أغنين تنيني وينك من كتير بيغا خمانتني تندقلو سنو برام لكو ملائكة يواتي ديسان جاركو تيواني تبي صلى الله عليه وسلم nga xamante ni rëy na rëy goo xamante ni bi ko suñu borom di wàcce rek daa wàcce par aaya waaye nag bi njëkk a wàcc mi wàcce ci laylatu xadr ñu koy dàq ci gi ku ci nekk nag eh, di ko dàq ni ko sa sa kilifa bëgge ndax ñun moom ku ci nekk rek am nga koo xamante ni ci moom nga nekk moom tamit mu lay dégtal li suñu borom di bëgg kon ku ci nekk rek foofu nga koy dàqee waaye mu nekk guddi goo xamante ni moo gën junni weer waaw mu ko junni weer na boo ci jaamu yàlla day far mbooleem jaamu ma mësana jaamu suñu borom rek guddig layatu xadar googu da koy far moo tax ma ngi dañ ci daa yaatal bu baax a baax jaamu yàlla yi nga xamante dañ ko ci daa def waaye mu nekk guddi goo xamante ne dañ koy dundal nekk dañ koy dundal nag mooy ci jàng alxuraan waaye nag ci berne waaye nag ci def ay salaatu bu baax a baax ndax lépp lu ñuy jigee suñu borom rek ci loolu la jàng alxuraan julli si yonent bi salaay waaye tam jéggul waale suñu borom te loolu lépp guddi gi da koy àttan te da koy man kon moo nekk téere boo xamante ni moo ñu tàqale dëgg ak neen ci nit ñi da yonent bi daa wax naan àdduna mooy kasub jullit waaye nag moo nekk àjjana koo xamante ne gëmul ndax boo xasee ba nekk koo xamante dañu ne yow fii ngay yem fii ngay tàmbalee sa alal sax ñi ma woo koo jële fenn fi wala tam tamit ñi ma ko dugal fenn fi rek kon kooku moom mu ngi ci kaso te ñun jullit ñi loolu moo ngi tënk léegi nag dafa dem ba lépp li nga xamante suñu borom digaloon nañu ko ci téere bi tere ñu ko léegi dem nañ ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax ni ñoo yor suñu borom ñoom ñooy jottali waxi suñu borom ñoom ñooy daganal li suñu borom mi miraaran danga koy gis surtout si jamono ji ñi nga xamante ni am fokkat sax dañ koy yëkkati jox ko dayab xut bu samaan ak fokkat sax dañ koy yëkkati jox ko dayab euh, nit koo xamante nit yàlla la te ñu waroon ko woo ni ko nangam bi ngay def kat du lu baax génn ci ndax suñu borom bugg ko waaye dañuy xool léegi li ci poosu nit ñi moo tax pour ñu wax ñu li suñu borom wax dëgg sax day xaw a des ba ci suñu borom li mu wax sax da gis nit ki da koy firee di ko firi ci euh, ki nga xamante toog na te yaakaar na ci moom dala koy firee jëmale ci kooku wala boog di yokk ci yoo xamante ne amaana sax la muy wax yow boo toog sax nga xam ne kii li muy wax ni daa topp bakkanam wala boog day xool li ci poosu nit ñi rek moo tax muy wax kon moo tax nekk na téere boo xamante ne suñu borom moko waxal bopam te tamit mom rek la wax ni mom mokay samal bopam motax moo tax da ngay gis ni même sax say say buñuy def seen yef sax ba commencé bëgg ci wañi dara wala di ci yok dara rek automatiquement ray gis ni nit ñi dañ koy signaler ñep di ko xam lool na liko wara moy suñu borom mo wax ni alxuraan mom mokay samal bopam té te te jamono yooyu te salaa salaam ba tey gis ñu yok ci dara wala ñu wañ ci dara xana légui suñu jamono ji nga xamanteni ni dañoo topp suñu bakkan ba mbooleem lu suñu borom digaloon ñu rek da gis ne léegi dañ koo woyee woyefal bu baax a baax a baax waaye itam dañ koo jël di ci def lu ñu neex te loolu nag nit ñi war a delloo seen xel si yàlla bu baax xam ne boo lëgee koo xam ne dadaa wax naan suñuy borom nee na nit ñi di ko déglu dina toog ak yoon ñëpp lay wéete waaye ñi nga xam dañ wax suñu borom nee na nit ñi di leen déglu kon ñoom saa suñuy wax war ñoo wax lu wér loo xamante ni duñ sosal suñu borom waaye duñ yokk ci ay waxam waaye itam duñ ci génne lenn loo xamante ni lu ci bokkul la ndax bu kii firee jaar ni ni lii baaxul kii firee jaar ne loolu baax na war a bokk nangam boo ko defee sax dara du la ci fekk kon musiba day daal di am kon daal ñi nga xamante ne ñoo yore kàddu suñu borom ñooy wax ñu leen di déglu sawat ustaas yeeg ñi nga xamante dañ leen déglu ñoom nañ gën a ragalal bu baax a bàyyi xel ni moom boo légee lépp luñ koy sosalit buñ taxawee ci kanamam moom lépp dina leen am na ful la joo xamante ni même bu fekkee da nga kaa bëgg a jël sax di ko boole leneen moom moo lay dénoncé boppam kon loolu nako ko bokk yi nga xamante dañu yor kàddu suñu borom di wax yalla neena na yonent bi ne suñu ba wax na ci alxuraan te amana sa bo xoolee alxuraan doko ci fek kon loolu nako gaay yi xel bu baakha baakha baax gëna fonkat euh, téré bi waye tam bañ ko def rek moobul même bu dee sax comme niñ ko waxon ci njëlbeen bu dee ben isib sax nga mën ko ci sa su xëyee ba julli diko jang jàng lu baax la te lu am solo la kon tay ji loolu lañu doon ci seen émission yobul koor di len jox dig daje ba suba inshallah rabbi di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu